assalamualaikum mbokk moy mooy yalla dafa muur ay batam ci diglu mu jang ci ba mokal alquran karim waye tay mbokki dama len di won ko xamne ci lambatu ci la jang alquran karim ba mën ci lu bare bare bare kenn amatul lay lo meuna tolo rek mën nga jang alquran lambatu nga jang ci alquran mokal ci lu bari top len ma tay kooku la len won inshallah mbokki ñoo leen ñu def tay rek ngeen di yéemuwaat nga da xamni yow fi mu mom da ngay da koy lamb rek ba xam ko Modou sambu mi mbok yi nek ku mata xamle di jambar lol ci limi muy ñukay wax baray ci la dem ba jàng lu baree bari ci alquraanu karim waye tamit jàng lu bari ci xam-xam. baray nak mbok yi di xeetu jang bo xamni mom moom jangleel silma silmaxa yi nga xamni ay tombe moy base bi mom da koy lambatu rek diko lire ñu doyna war lool. tomb bi de mooy yi. maam gis nga xam dafa

maanaam lii dafa am école boo xam ni moom ngeen koy jàngee fii Sénégal. waaw Sénégal am na benn école bi ñuy hmm. hmm. hmm. mbokk yi moom na boo gisee ak ni muy jëfee da ngay jàpp ni sax mi ngi gis waaye gisul dara ci baraay la jàppandu ba jàng alxuraanu karim incha allahu rabbi le 10 novembre. concours nafar bi ci Grand Théâtre dinañ ko fa sargal inshallah ma ngi len ci inviter ñep 9h na len fa fek entrée bi gratuit la inshallah way waaye mbokk mi diglu ko ni mi jangé alcorane karim tay la sa xol di sét inshallah may ko ay kër nga ñaan ko ci commande illa man ittakhadha 'inda ar اتخذ 'ahda mm-hmm. wa qalu ittakhadha ar الرحمن walada mm-hmm. laqad jittum shay'an عن يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخف الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا الله أكبر لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ما شاء الله بان مثال غير لانسي نيغا خمني يالا ديفنا تاوات tawat خمني دالنا لا تاي دالنا لين ني سي dal توك ياكار ني ورو bari مانا جانغ بان بان mën a jàng wa message bima len leen rek moy euh mhm. ah, ñi baña tok rek. Mhm. ñu bañ a maanaam perdre espoir. Mhm. xamne yalla lepp lo xamne ni tek na la ko rek. xam amna buntu yo yooyu jaar. ba mën wéyal sa dund te du gàllankoor. waye nak Mm-hmm. ñoom dafa war ñu jàppale leen parce que am na ñoo xam ne nii sax mm-hmm. mën nañoo bañ a xam ne nii nekk nañ ay kii ay ay ay silmaxa mm-hmm. waaye xamuñu ne yoon bi am na mën ñu cee mën ñu cee mën nañ cee jaar ba ba génn ci mais xamuñu ba xam di am na am déet loolu na kon dafa war autorité ci boppam am ñoom ñi communiqué ci wala ñeen ñi ko xam mën nañ cee gindi incha allah ñoom